Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 29 août 2024 suñ fa jógee nañu dem ci coalition Diomaye présent, fofu ca Mbàkke ginnaaw bi doon amal ay réunion je crois que daal tassaro lañ fa gis ñak déggoo lañ fa gis plus particulièrement li nga xamante moy nomination Aminata Touré ginnaw bu mu leen menacé dal ne suñ ko nommé wul day génn ci li nga xamante moy coalition bi dafa melni loolu la dégg moy ay rumeur yo xamante ñi ngi doon circuler ay fan ne Aminata Touré dal dafa melni mi ngi menacé li di coalition Diomaye président ci biir loolu dal altine bi ñu génn le président de la République Bassirou Diomaye dafay le décret dans di koy nommé li nga xamante représentant auprès du président de la république nañu seeti ji vidéo bi nga xamanteni tassaro lo indi ci réunion bi nga xamanteni coalition jomay président amaloon nañ ko fofu ci Mbàkke coalition jomay président am ay jafé jafé yu tar yu jéggi dayoo ci commune bu Mbàkke dafa tega témbe demul dikul waxtan amul ñenn ci ay responsable yu fété ci mouvance présidentielle bi ñoko xamlé xamle ci ndaje mi ñu doon amal ak to xibaar yi docteur Mamadou Mbodj consultant international kenn la ci ñom te ñun ñoo nekkoon fi doon pour un indi changement parti Pastef gañewul La coalition de mai gañe ñun nous ay avancer dans le fou. Nous avons ci coalition bi di Nous di wax na nous ni mu war avons su nous avons élection responsabilité parce que ñun de donc rek la faire coalition bi jubbanti ko mu dox ci dëgg ñu Nous xam nañ am bu fekkee loolu mënut a nekk nag ñun jomaay la ñuy jàppale parce que gisaguñ dara le contraire luy wane ne kii war nañ koo bàyyi wala war nañoo dingat li muy def. ñu leen di alerter pour li taxoon nit ñi fal leen muy jub jubal jubbanti ñu nekk ci te loolu nag bu fekkee dañ koo bëgg def dañoo war a opérer ay rupture yu mat sëkk. ci seen ndaje mi ñu doon amal ak taskatu xibaar yi waa coalition Diomaye président ne sàkku nañ ci nguuru Sénégal ñu gën a taxaw commune bu Mbàkke ndax dara doxu fi amul benn jumtuwaay lépp a tagga témbe ay problème assainissement accès à l'eau am nañ problème éducation parce que élèves yi nekk fii daanaka moitié bi plus de la moitié ñu ngi jóge Touba donc il dafa am ay problèmes yoo xam ne ay réflexion sérieuse de laaj ñu mettre ko en œuvre mais à chaque fois fii li ñu fiy gis mooy dabb daaxe ñun dañoo bëgg lu baax comme ni ko yeneen dëkk yëpp aajowee bokk na ci li la koy wan mooy màggal gi ñu ngi gouvernement bi joxe na 800 millions pour jàppale hôpitaux mais waa Mbacké lan lañ ci am 5 millions fii si Mbàkke tamit am na ay chantier yoo xam ne ñu ngi woon en cours maire bi nga xam ne il travaille seul ñun ay conseils municipaux lañ ñu ngi fii mais kenn mënu laa wax virgule ci programme bi nga xam ne benn moo koy def. bi ñu jeexal seen ndaje ak taskatu xibaar yi responsable yi féete ci mouvance présidentielle di sàkku ci président de la république Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ñu àddu ci mbir mi ut ci ay saafara balaa làmbaay di ñaaw Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri kon ñoko ko coalition jomay président bi nek fofa ci Mbàkke ay jafe-jafe yu metti lañuy dundu jamono ji demul dikul déggoo amul waxtaan amul tassaro lay nurool lu ko waral nak ñom ci seen biir ñoo ndax té partage du gâteau buñ doon bañ dafa melni ni partage du gâteau bobu lañu tambali té ñenn ñi nga xamanteni gisunu seen bopp ci partage du gâteau bobu moo tax ñuy rayenté seen biir ndagam ñom ñoo mëna rayenté seen biir plus particulièrement ñi nga xamanteni andu won ak ñom té jamono ji ñi ngi dundu souffrance bu metti metti jëmele ko daal ci fal bi nga xamanteni ne fal nañ leen ko donte erreur la sénégalais yi xam naa ne ñu ngi regretté bu baax en tout cas muy jafe-jafe yi nga xamante ni lii di coalition Diomaye président ñu ngi koy dund foofa ca Mbàkke ginnaaw bi nga xamante ni amul entente amul waxtaan amul dara loo xamante ni bokk na ci déggoo ci seen biir en tout cas muy li nga xamante ni daal révélé nañ ko ci semaine bi ñu génn.